municipaux yooyu di wax xamuñu chantier bi lu dul bi ñu tëjee ñu ñëw xëy na am na ci ñoom ñu ñëw visiter chantier bi parce que am na suñu ñu jot a waxtaanal bi mu yéegee euh, mois de euh, février le exi 2022 premier contact bi mu am ak ñun mooy le 20 mars mu binduñu ñu lettre ni arrêté leen chantier bi ba ma xool saytu contrat bi xool li ngeen di liggéey lan la defe naa chantier boo xam da nga ko liggéey ba pare am comme ni mu koy waxee rigueur par rapport au délai doo ñëw ne arrêté leen liggéey ba ba ma comprendre parce que li muy comprendre ci ay këyit la nekk maire bi nag comme ni ma ko wax musul ñëw si chantier bi lu dul bés bi mu ñëwee ànd ak police ak euh, ay agent wam pour ñëw tëj si marché bi muy le 11 décembre bii ñu génn euh, communication bi waa maire bi yëpp di def mooy euh, toujours di wax baaxul baaxul baaxul li baaxul balaa nga ciy wax da nga koy xam ku gis fii nii xam ne 450 pare na bunt yaa ngi ñuy monter donc loolu moom waxu mbedd la rek